sama borom mawlaana tabaraka wa taala nee na it mi ngi leen di seede loo yéen ñëpp ni mi ngi sant boromam Mawlana tabaraka wa taala te cant googu ñun yëpp la war tey ne sant boobu la mu sant suñu borom ñun ñëpp la wax
yi ñu ko war a sant bari na lool ndax tey yi ñu ko war a sante nee na bari na lool
waaye gëje mbir ci place ba nga ko doon defe waaye ne gëjë mbir ca place ba nga ko doon defe
ba at ma dellu si ba at ma dellu si ca weer wa nga ko defe woon ca weer wa nga ko defe woon ca guddi wa nga ko defe ca woon guddi ga nga ko defe woon ca place ba nga ko ca defe woon place ba nga ko defe woon yàlla rek ko mën yàlla rek ko mën loolu nag képp ku la ko defal nee na loolu nag képp ku la ko defal war nga ko sant war nga koo sant cant goo xam ne ne sant goo xam ni lu tax sax nga mën a jot la mu la defal du tax sax nga mën a jot la mu la defal waaye dana ci xam ne li mu la defal yëg nga ko waaye nag dana ca xame ni li mu la defal yëpp te loolu it mën na tax mu dolli la tey loolu mën naa tax mu dolli la ndax suñu borom wax nañu ne nee ndaxte sunu borom wax nanu ni la in shakartum la azidannakum su ngeen sante su ngeen santee ma dolli leen nee su ngeen santee ma dolli leen
kon nag yal nañu yàlla dimbale
kon nag nee na yàlla na yàlla dimbali
gis looñu li nga xam ne danu danañu koy defal ci xéewal gis loolu li nga xam ne lii daanu ko defal ci xéewal may ñu kattan ak xol yu sell yu ñu ko mën a sante kattan ak xol yu sell yu ñu mën a sant ci daraja yonent bi ci dara sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañ fi yàlla yàgg dajale nee na yàlla na fi yàlla yàgg dajale ci place bi dajale boo xam ne bii dana tëdd ci kaw sunna dajale boo xam ne bii nag dana tëdd ci kaw sunna
ànd ak ak sell ànd ak ak sell te it mu ànd ak xabool gu bàyyi ko ci yàlla te ànd ak kabool bu bàyyi koo ca yàlla yal nañ ko yàlla defal defal leen ko yàlla na nu yàlla yàlla na ko yàlla defal defal leen feneen fu waay nekk di fa jëf lu mel nii it yal na la yàlla defal loolu nee na feneen fa waay nekk di fa jëf lu mel nii yàlla la yàlla defal loolu ñu ko yéene bëgg ko te amuñu kàttan ga it yal na leen ko yàlla ne defal ko yéene bëgg ko te amuñu kàttan ngay yàlla na leen ko yàlla defal ci daraja yonent bi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallallahu sallam alayhi wa sallam
ndax ci ñëw na euh, ku- mbayka ndax ñëw na ah mbay ta ndax ñëw na ak Alioune Cissé ak Alaji Alioune ak Alaji Birama ak Alaaji Birama ñi ndax ñëw nañu mbay ka ñu laaj mbay ka ndax ñëw nañu mbay ka bu ñuy wax mbay ka ak Alaaji Aliou Si ak Alaaji Birama ñi ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax ah yéen ñëpp nag sëñ bi nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci mi ngi coon leen di sant bu baax yéen ñëpp ci coono yi ak ndimbal yi nee na mi ngi leen di sant ci coono yi ak ndimbal yi ak taxawaay yi ak taxawaay yi di ñaan yàlla mi mën a fay mu fayal ñu leen nee mi ngi ñaan yàlla mi mën a fay yàlla fayal ñu leen te lépp lu mu leen mën a fay yàlla na leen ci boole suturas adduna ak laaxira te lépp lu mu leen mën a fere yal na leen te boole suros adduna ak su àllax ak wér ak gudd fan ak kattan gu ànd ak jaamu yàlla ak wér ak gudd fan ak kàttan gu ànd ak jaamu yàlla
boole leen ci wërsëg wu lewet te lew boole leen te wërsëg wu lewet te yaag te lew ak li nga xam ne moo gën a jafe ak li nga xam ne nii nag moo gën a jafe muy mujj bu rafet mooy mujj gu rafet yàlla nañ ko yàlla yàlla may na ko yàlla boole te defal leen jërëjëf yonent bi te sallallahu alayhi daraja wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
li ñu fi des li ñu fi desal di ko dund yàlla nañ dund ci lu neex yàlla yàlla li ñu fi desal di ko dund yàlla na ko dund ci lu neex yàlla bés ba ñuy nar a dajeeg moom it yàlla nañu fekk ñu ànd ak ngërëmam ak kontaanteem nar a daje moom it yàlla na fekk mu ànd ak ngërëmam ak kontaanteem ak kontaanteem di jaayi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam ak suñu barke sëriñ ak sunu barke sëriñ ak i sëriñam ak i sëriñam ba tey ñu ngi leen di dollee ñaan ba tey nee na ñu ngi leen di doolee ñaan ñu di yeesal suñuy pas-pas ci lépp lu ñu jóg jëm ñuy yeesal suñuy pas-pas ci lépp lu mu jóg jëm te di ca sàmmoonteeg ndigalu yàlla te di ca sàmmoonte ndigali yàlla di ca wattoonteeg ay tereem di ca wattoonteeg ak tereem loolu moo di la nga xam ne moo am njëriñ loolu mooy la nga xam ne lii moo am njëriñ yonent bi sallallahu alayhi wa nee na sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nee na wax na ni wattaqu llaha fi ma taatuuna wa ma tadaruuna na ngeen ragal yàlla ne yonent bi nee na na ngeen ragal yàlla ci lépp loo xam ne da ngeen ko dikke ci lépp loo xam ne nii da ngeen ko dikke ak loo xam ne da ngeen ko bàyyi ak loo xam ne da ngeen ko bàyyi na ngeen ca jox yàlla la mu moom na ngeen ca jox yàlla la mu moom loolu mooy lan loolu ne mooy la loo jógati jëm ci ci jëf loo jëlee ci jëm ci ci jëf na yàlla tax na yàlla tax lépp looy bàyyee lépp looy bàyyi na yàlla tax na yàlla tax jàng ngeen ko ci laxdar yu nee na loolu jàngeel ko ci laf dëri yu War- ñu di jëkk jàng ñu ne war na ci mukallaf ñu ni war na ci mu kàlla muy bëgg ngir yàlla muy bëgg ngir yàlla di bañit ngir nee yàlla na di bañit ngir yàlla ci léppam nag ci lépp yal nañ ci yàlla kàttanal yàlla na ci yàlla kàttanal kàttanal leen xam naa jafe na nee xam ne ni lu jafe la waaye nag yàlla mën na ko yombal ba mu yomb waaye nag yàlla mën na ko yombal ba mu yomb ndax yëfama ndax yëfama te lu mu bëgg mu la waaye am te te lu mu bëgg loolay am kon nag ñu ngi koy ñaan yàlla nañu defal lool kon nag ñu ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla yombalal ci defal nu loolu jafewu ko ne moom jafewu ko te itam suñu jëf yi la te it suñu jëf yi le ak yëngu yi ñu yëngu ak yëngu yi ñu yëngu yàlla na ko yàlla teg ci jëfi mag ña yàlla na ko yàlla teg te jëfi mag na ndegam dara manqué na ci ndagam dara manqué na ci ci mbaaxam ci mbaaxam ak rus gëmu rus mag ña ak rus gëmu rus mag ña ak bëgg gëñ mu leen ak bëgg bëgg gëmu leen bëgg ak ñoom it doyloo ga ñu doyloo ak yàlla ñoom it doyloo ga ñu doyloo yàlla ak gënal gëmu leen gënal lépp ak gënal gëmu leen gënal lépp yàlla na yàlla yéegal suñuy jëf yàlla na yàlla yéegal suñuy jëf ci seeni jëf te seeni jëf yéegal suñuy yéene yéegal it suñuy yéene ci seeni te yéene seeni yéene ci mbaaxam ci mbaaxam ak yërmandeem ak yërmandeem ak ngëneelam ak ngëneelam bi jaahi bi jaahi rasulillahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
wa sallam léegi nag léegi nag ñu ngi bëgg a jëm ci li nga xam ne moo ñu tax a bàyyi suñuy aajo yépp ñëw fi ñu ngi bëgg a jëm ci li nga xam ne lii moo nu tax a bàyyi suñu aajo yëpp ñëw xam na amuñu jéego yu ñu te xam na ni amuñu jéego yu ñu jote mag ñi nga xam ne ñu ngi ci suñu kanam te rawoon ñu ba noppi yu ñu jote mag ñi nga xam ne ñu ngi ci suñu kanam te rawoon benn waaye kon it ñu jéem a tegu ci yoon wi waaye nag kon it ñu jéem a tegoo ci yoon wi doonte le dañuy watatu it doon teelee dañuy watatu yi ndax waxtu wu ñu àggee ndax waxtu wu nu àggee suñu toogee ba ca kanam it suñu toogee ba ca kanam suñu walbatikoo suñu wëlbatikoo yem ci ñun yem ci ñun wala ñu gàttanduñu wala ñu gàttal ñu fekk ñu ci kaw yoon wi fekk lu ci kaw yoon wi yal nañ ko yàlla yàlla defal na ko yàlla defal place boo xam ne nee na place boo xam ni Seydi El Hadj Malick radiyallahu taala anhu Seydi Xaaji Maalik radiyallahu taala anhu ci ragal yàlla ga te ragal yàlla ga ak mbaax ga ak mbaax ga ak sell ga ak sell ga ak wattandiku ga ak wattandiku ga ak xam-xamu ak xam-xamu bu leer ba bu nga leer xam ne ba.
ca yàlla la bàyyi te ko yàlla la bàyyi ko ndax xam-xamam ndax xam-xamam ilmu ladundi la woon nee na ilmu laduni la woon
bu wér a wér bu wér
mu jóge fi mu jóge fi place bii place bi Sidi Aboubacar daan fi toog si daw Bakar daan fi toog fa tabaarakallah tabaarakallaahu ba yàlla indi lii ba tey yàlla indi lii tey ci seen barke ci seen barke yàlla nañu yàlla dimbale ba nee na yàlla nu yàlla dimbali be suñu leen mënula jotit suñu leen mënu la joti lu ñu fi wax lu ñu fi wax mu sell mu sell te ñu bañ ci wut dara te ñu bañ ci wut dara lu dul yàlla lu dul yàlla yéen ñiy déglu yéen it ñiy dégg ñëpp yàlla na leen yàlla defal yàlla na lool leen yàlla defal lool ci dara yonent ci bi dara ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam yàlla nañ fi sippee te bañ fi sëfe yàlla na fi sippee te bañ fee sëf waxuma sëf leneen sëf ay yiw kat nee waxul sëf yiw kat maanaam ñëw fi ñëw fi
di fi fo di fi fo di fi doxal di leneen fi doxal leneen lu dul loo xam ni mooy yelloo néeg bi lu dul loo xam ne mooy yàlla néeg bi defe ne sa bakkaar yépp sippiku na fi defe ni sa bàkkaar yëpp sippiku na fi te teqaloo cee ko te dara teqali ko woo ceeg dara jële at fi beneen jëlee sëfi waat fi leneen yàlla nañ ci yàlla yàlla na ci musal yàlla musal bi jaahi rasulillah jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallallahu sallam alayhi wa sallam
téere bi de nee na téere bii rek sayid alxaaj malik Seydi Xaaji Maalik radiallahu taala anhu radiyallahu taala anhu
wax nañu ne ne wax nañu ni
ni mu koy liggéey bi mu koy liggéey masul teqalikoog di gis rasulullah mësul teqali ko gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ak wax na ne ne wax na ni ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu yàlla miimi ya mimi ya fu mu fanaan fu mu fanaan te ñu fanaanal ko fa mu yàlla dañu fanaanal ko fa mu yàlla su bu yeboo borom xam ne yonent bi fanaan suñu na ko moom borom xam ni moom yëpp yàlla Muhammad fanaan na ko fële fekkal ga mu fanaan
te it loolu sikk waru ci tey nag loolu benn si waru ci am
liggéey gi mu ko liggéey nee la géej gi mu ko liggéey benn bayt bu nekk benn bayt bu nekk soo ko seetee ci téere yi nga xam ne wesar la soo ko seetee ci téere yi nga xam ne yi wesar lañu ay paasi paas lañ ay paasi paas lay doon te xeeti xam-xam yépp la ca te boole xeeti xam-xam yépp la boole ci bayt bi te it ni mu def yonent bi te ni mu def yonent bi ni baykat bu mag di def mbay ni baykat bu mag di def mbay noonu la def sallallahu alayhi noonu la wa def sallam sallallahu alayhi wa sallam baykat bu mag ne baykat bu mag su cooroonee su cooroonee day wuti àll day wuti àll toj ko toj àll ba gor ko goor àll ba ba mu set ba mu wecc set wécc mu lakk ko lépp ne mu lakk ko lépp lokkat ko ba mu set lokkat ko ba mu set lakk lépp lakk lépp
toog ba bët set bi toog ba bët set bi mu wut jiw bu rafet jiw bu rafet bu sell bu sell yóbbu ko xolli ko xolli bu sell xolli ko xolli bu sell tànn ko ba mu rafet tànn ko ba mu rafet mu denc ko fu ñu wóolu mu denc ko ci place bu ñu wóolu puudare ko ba benn sax du ko mu lekk jël ko ba benn sax ak gunóor du ca dugg préparé larmetam préparé ay laametam wala machine yu wala jiwkaayam machine jiwkaayam ak fas yu am kattan ak fas yu am kattan ak way amat yu sawar ak way am yu saar ak ñu mën a bës ak machine ñu mën a bës machine suñ dajeeg bàq bu suñu neex dajeeg bàq bu tooy te duñu am pakk te duñu am fag sël guuf du fatt seen tël i bunt boobu du fatt seen machine
yoon yu jub lool yoon ya jub lool topp ko ba mu set topp ko ba mu sotti mu raada ko mu raada ko ba mu sell ba mu sell buub ko buub ko ba du amum ñax ba du amum ñax suñ bayaat ba su dikkee bayaat dikkee bayaat ba jot bayaat ba jot mu bayaat mu ko bayaat ko bàyyi ba ballar ñu bàyyi jot ba balar ñu jot mu ballar mu ñu balar ñu ko bàyyi ba nabat jot bàyyi ba nabat jot mu nabat mu nabat ko toog ba déqi toog jot ba deqi jot mu déqi mu ko deqi ko fëgg ko fëgg ko tar ko tar ko ba mu fenni ba mu fendi mu mu naaf ko mu naaf ko wàcc ko ba nga xam ne taret bi jóg na wàcc ko ba teret bi jóg ba dox ay fan ba dox ay fan mu bàcc mu ko bàcc ko ci bàcc yoo xam ci ne bàccu yoo xam ne yi gerte ga du toj gerte ga du toj ba mu sotti ba mu sotti mu jëri ko mu jëri ko jëriin wu rafet jëriñ wu rafet bant du ca nekk bant du ca nekk dara du ca dara nekk du ca nekk sol ko ci sol ko saako ci saaku yoo xam ne yoo xam ne yi yu bees yu peq la bees fekk la teg ko ci teg ko baskil ci baskil boo xam ne boo xam ni ka cay jënd ka cay jënd ragal na diggante ak ragal na boromam digganteem ak boromam ba du wàññi ba du wàññi waawu kenn waaw kenn ñu jaay ko ñu jaay ko mu fayu mu fayu yóbbu ca këram yóbbu ca këram noonu la góor gi def noonu la góor gi def sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ci téere ndax ndax daf ko dale ca leer ga daf koo dale ca leer di dox ak moom di dox ak moom
ba bi mu soobee yàlla ba bi mu soobee yàlla fi mu ko jaarale yépp fi mu ko jaarale yépp ba indi ko ci ndiggal maam Adama ba indi ko ci ndiggal maam Adama mu di fa nekk mu di fa nekk di fa nekk di fa nekk bala xew-xew bala xew-xew mu ëpp jële ko mu ca jële ko ca teg ko teg ko ci jëm ci jëm jële ko ca jële ko ci jëm jële ko ci jëba jële ko ca jëba def ko ci baaraam mu sabbaalu kaayam ba ba baaraamu sabbaalu kaayam ba bi mu neexee ba suñu ñu ko borom neexee suñu borom mu bàyyi ko ci mu Adama bàyyi ko ci Adama ñëw ci siifa ñëw ci siisa di topp di topp di topp di ko topp ba daanu si ci Abdul ba daanu Muttalib ci Abdullahi ci Abdul ci Abdul Muttalib Muttalib jóge ca jóge ca daanu ci daanu Abdullahi ci Abdullahi jóge ci jóge ci Abdullahi Abdullahi xaraf xaraf ci sittuna Amina sittuna Amina mu di ko fa mu garde jël ko fa garde di ko fa di garde ko fa garde ba mu génn ba mu génn di Muhammad di Muhammad sallallahu alayhi wa sallallahu sallam.
alayhi wa sallam
góor gi bàyyiwu ko merci di Hadj Malick bàyyiwu ko wax kañ la ndeyam dee wax na kañ la ndeyam dee ak baay ba kañ la dee baayam wax na kañ la dee ak ba baayam di ak dee ba baayam di dee booba fu yonent bi boobu nag fu yonent bi nekk ak bi Aminatu di ak dee bi Aminatu yi dee booba yonent bi na mu day boobu yonent bi na mu day ak yar gi nga ak- xam ne Aba Talib yar na ak ko yar gi nga xam ni yar gi nga xam ni di Aba Fall yar na ko di ko di ko toppatoo toppatoo gannaaw yarug Abdul Muttalib gannaaw yaru Abdul Muttalib di dem ak moom di dem ak moom wax li mu mag wax li mu mag ak li mu daan jëf ci ak bi muy li mu gone daan jëf ci bi muy ah, gone gone ak màggam ak màggam na mu daan def na mu daan def ak ñaata weer la am ak ñaata weer la am mën a raam mën a raam ñaata weer la am ñaata weer la am mën a jóg mën a jóg jafandu ci miir jafandu ci miir miir ñaata weer la am ñaata weer la am di dox di dox doxinu koo xam doxinu ne koo xam ni fonkal ponkal mu la am laf bu la am laf la ci am ci am kattan kattan di ko di yóbbu ko yóbbu ba ba wax wax mën a jam gi ko yàlla mayoon mën a jàmm gi ko yàlla mayoon tudd ñi mu ci nampaaleel ñi mu nampaaleel ak ñi cay ak jullit ñi ciy jullit ak ñi cay jullit ñi ciy jullit ak ña ko doon ak nampal ñi ko doon nampal di ko di ko yóbbu di ko yóbbu di ko yóbbu di ko yóbbu ba bi mu jotee yàlla ba yónni ko mu jotee yàlla yónni ko ak yi mu ak yi dajeel mu dajeel ak tiis yi mu ak daj tiis yi mu dajeel ak i jabaram ak i jabaram ak ña doon taara ak ña doon taara ya.
ak ñay doom yu ak ñuy jigéen doom yu jigéen ñi ak ñu góor ak ñi ñu góor ñi li mu am ci li jaasi mu am ci jaasi jaasi.
li mu am ciy fet li mu am ci fet li mu am ciy mbubb li mu am ci mbubb jaaro ba jaaro ba ak na mu ko daan ak takkee na mu ko daan takkee ak na mu ko daan ak na mu walbatee ko daan wëlbatee ak peñe ya ak peñe ya ak ña ko bëkk néeg ya ak bëkk néeg ya ak ña ko doon ak noddal ña ko doon noddal ak ña nga xam ne ak ña nga xam ni ñoo doon ñoo attekatam doon attekatam ak ñi mu dénkoon ak ñi marché mu ya dénkoon marché ya ak ña ko daan ak noddal ña ko daan noddal ak ñi nga xam ne ak ña nga xam ni ñoo doon bàyyi ñoo yàlla doon mbaa yàllaam di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba feebar tabbi ba ci feebar tabbi ko mu topp mu ko topp ko di ko topp di ko topp ba wax ba wax la mu am ca la feebar mu ba am ca feebar ba ak ñaata ak fan la ñaata fan la di ko topp di ko topp ba bi mu génnee ba bi mu àdduna génnee àdduna ña ko doon ña sang ko doon sang ak ña ko doon ak ña ko taxawu doon taxaw wuute ga ca amoon mu teg ca am ña doon sotti ndox ña doon ma sotti ndox ma ña doon rag ña doon rag ña doon ña doon wëlbati wëlbati ña gas ña bàmmeel doon ba gas bàmmeel càngaay ya tàng càngaay ak ya ndox ma ndox ma fu ñu ko fu ñu rootee ko roote ak ak ndax saxaaba ya ndax saxaaba ya ñeent ñooñu la ñeent ñooñu la ñëpp nga fa woon ñëpp nga fa woon ak ku fàddu ak woon koo fat ku fàddu woon ak lu doon ak seen lu melo doon sabab lu lu doon seen melo ak lu doon seen melo ak ku ca nekk ak ku ca nekk bi go yonent bi génne bi àdduna yonent bi génnee àdduna te tiit jàpp te la ci jàpp la lan nga doon jëfe lan nga doon jëfe ak ñeleen ci ak ñeleen- këleen këleen ci ak ka jële leen ci jële di ko topp di ko topp ba ñu dugal ko ba ci ñu bàmbeel dugal ko ca bàmmeel ba ak yemu ci wax ak yow yépp ci wax yëpp ba bi mu dajeek ba borom bi mu dajeeg borom yooyu yépp yooyu la yëpp Seydil Hadj Seydi Malick Hadj May bàyyi wax bàyyi ko ci bàyyi wax téere na lépp lépp wax na lépp ci biir téere bi mim yi
kon nag mii ya kon nag ne mim ya
mbir mu rëy la mbir mu rëy la
dooy na yóbbul waa ji tukki ju nekk doy na it yóbbalu aju tukki yu ne
dooy na muslaayu lépp lu nit ragal doy na it muslaay lépp lu nit ragal waaye yépp nag waaye yépp nag mi ngi aju ci pas-pas mi ngi yi aju ci pas-pas ak gëm gi ak gëm gi
su la Hadj Malick juree su la Hadj Malick juree te téere bi te téere bi gëmuloo ko gëmuloo ko gëmuloo liñ ci wax gëmuloo liñ ci wax kon it kon it du la jëriñ du la dara jëriñ dara
Eh, léegi nag ñu ngi ci bëgg a jëm léegi nag duñ ci bëgg a jëm eh, ñu tàmbali ci ñu tàmbali ci tuuti waaw Cheikh su ngeen yeboo tàmbali ci bopp bi su ngeen woyee ci bopp bi ba ca kanam ñu dem ci mawlid bi man tey jëbe dama xaw ci la
وذلي يا إلهي واجني أبدا يا إلهي واجني أنا أبدا أن محمدنا المغدار بالخدم إن الأولين فيها وسبيلها إن العوالم فيها وسبيلها أسيئة القلم من أفضل النظم وذلي يا إلهي واجني أنا أبدا أنا محمدنا مغدار بالخدم وأعلم الله دينا قوته وكان آدم بيا
téere bi wax ci lëf ñu ubbi ko bismillahi irrahmani irrahim ndax sallallahu alayhi wa sallama wax ne mbépp mbir moo xam ne mii ñu ngi cay yaakaar barke te jiite lu ñu ca bismillahi irrahmani irrahimi yàlla du ca def barke bismillahi irrahmani irrahim lamb na ci ngëneel loo xam ne lii lu rëy la kenn xamu ko lu dul ki nga xam ne kii moo ko wàcce muy mawlana tabaraka wa taala sayidina ali ibnu abi talibin radiallahu taala anhu mi nga xam ne yonent bu baax bi sallallahu alayhi wa sallam magam ja wax na ne ana madinatu lilmi wa aliyun baabuhaa yonent bi ne man muhammad maay njëndil xam-xam sama rakk ju baax ji aliyun mooy buntu ba loolu rek day na tegtal ci ne Seydina Aliyun la mu ko yàlla jox ci xam-xam yaana moom moomu de nag wax na ne law shi'tu la awqartu sab'ina ba'iran min tafsiri fatihati lkitaabi su fekkoon ne man Aliyun neexoon na ma danaa sëf ci firim bismillahi irrahmani irrahimi juróom ñaar fukki gëlee mi madd te du tax tafsiru bismillahi irrahmani irrahim ma man ko jeexal bismillahi irrahmani irrahim bokk na ci ngëneelam rek ñu tudd ci ñaar yoo xam ne yi dana tax nit ñi war ko fonk te jàpp ko bu baax a baax am na benn waay boo xam ne dafa mas a dox ba yem ci këyit këyit ga ñu bind ca bismillahi irrahmani irrahim mu sëgg for ko ngir màggal tur wa ca nekk ca la ko sama borom jéggale ba dugal ko ajjan am na benn waay boo xam ne dafa kàccooroon lool yàlla atte mu am soxna soo xam ne si soxna sa moom yàlla daf ko baaxal am na ci salaaxiyatu loo xam ne lii yàlla mi ko jox rek ko ko xam di def nag lu muy def rek ne bismillahi irrahmani irrahim jëkkër ji nag nekkoon di kàccoor lool mere ko ci bismillahi irrahmani irrahim yi ji mu daan wax ne ndaw si la day dana fexe ba lii muy dox di wax ak di ko soow dana ko bay am lëf lu mu ko dénk ndaw safab lëf la takk ko ci morso tëj ko ci waxandem waaja nag yëg ne loolu le ndaw saan ko denc ca biir waxande wa mu dem tijji waxande wa sàcc pas-pas ba ak la mu ca façonte moo ko moom dem yóbbu ko ci beneen place dencal ko fa boppam toog ba mu am diir mu ne ndaw sa ana sama dénkaane ba mu ne ko ma nga ca waxande wa waaje ne teqet ree ca gannaaw ba ndaw sa dëddee mu ne ko jox ma ko ndaw sa dem fab doom ba yëkkati bay dugal ca kannaar ba ne bismillahi irrahmani irrahim teg rek kannaar ba fettax ubbiku mu teet seet morso ba fekk ko fa mu ko defoon ak la mu ca takkoon dara jógu ci mu yëkkati ko jox jox jabar jëkkër ja mu ne ko waaw yow kii foo ko jële mu ne ko ci wax nii mu ne ko waxuloo dëgg ndax man bi ma ko fay maa ngi ko sànni ca géej gi ca dex ga laa ko sànni na nga defe na nga def ba jot ci mu ne ko man de bi may tijji waxande bi bismillahi turu mag bi rek laa wax bi ma ubbi it fa laa ko fekk mu ne ko kon nga yow yaa nekk ci dëgg man maa dib saay saay fekk si naa la tey tuub naa dootuma defub caay caay
بسم الله والمثاني وآية الكرسي ذي المعاني وصارت الشغلات ذي تمجيدي وفاز من مات مع توحيدي ومن دعا بذي اليقين بجذب ما رار من المتين مجيب يا مجيب يا مجيب فقل دعاء وجل غريبا نسألك السبيل بالفلاح وسر رسالة الفلاح بمصطفى صاحب كل الخلق فبالإله منطقي بالحق أدعو بسر الله والمثاني وعيد الكرسي في المال
ñeenti dex yi nga xam ne sama borom tabaraka wa taala tudd na leen ci alquran ci suratul qital yooyu yëpp mi ngi bàyyi ko ci xarafi bismillahi irrahmani irrahim nee na dexum ndox ga mi ngi bàyyi ko ci miimu bismillahi irrahmani irrahim nee na dexu soow ga mi ngi bàyyi ko ci haulaahi dexum ñoll ma mi ngi bàyyi ko ci miimu rahmaani dexum lem nga mi ngi bàyyi ko ci miimu rahimi sama borom wax na muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa muhammad man dakarani bi hadihi al asmaai min ummati bi qalbin xaalisin min riyaain wa qaala bismillahi arrahmani arrahim saqaytuhu min hadihi al anhaar mu ne yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama soppe bi maa ngi lay géñal ci sama màgg nga ak sama tedd nga ne tur woowu la képp koo xam ne ki tudd nga ko te mooy baatu bismillahi rahmaani rahim ci xol boo xam ne dara ci ngistal nekku ca ànd ak sell nga tudd bismillahi rahmaani rahim maa ngi lay yëgal ne ëllëg danaa la nandal ci sama ñeenti dex yi la yal nañ ci yàlla boole bismillahi rahmaani rahim nga ne lam yaana amoon nas ndaw soo xam ne dañ ko mayen ci kenn ci nit yàlla yi mu mage lool ndaw sa nag bëggul lu dul góor gi dee ndax mu sëy feneen ndax bëgg ko muy def nag waxtu woo xamee ne préparé na góor gi lu ñu war a naan fab tooke def ca biir góor gi ne secc weer ba ne cocc rek su ko toggale ñam def ca tooke góor gi ne fuuf ñam wane cocc ndaw sa nekk ci wow melo ba góor gi xam ne kii su ko fi téyit lor la koy indi ndax bëggatu ko te li mu koy defit du ko wàññi dara mu ne kon nag naa ko jéem a bàyyi rek mu wuti feneen fu mu séyee ba mu ko bàyyee nag ndaw sa ne ko moo góor gi yow de man jaaxal nga ma lépp lu ma la mas a jox ci lu dee fi naan def na ci poison lépp lu ma la mas a jox ci loo xam ne def na ko lekk def na ci poison dama bëgg nag nga wax ma lu la musal mu ne ko baat bi bismillahi rahmaani rahim loo ma mas a jox ba nga xamee ne sama xol ràgg na ci su dem ndox ma jiital bismillahi rahmaani rahim su fekkee ne ñam la it ma jiital ci bismillahi rahmaani rahim loolu moom musal waaye demal rek wuti keneen te bàyyi ma li ci dikk bari na lool góor gi nag ne alhamdu lillahi zil ijaadi wal qidami mumiddina bi wujudi lbadri zil qadami ne alhamdu mbooleem xaaji cant yi ñeent xamdu qadimin li qadimin xamdu qadimin li xaadisin xamdu xaadisin li qadimin wa xamdu xaadisin li xaadisin góor gi ne ñeenti ndomboy ngëneel yooyu yépp sama borom tabaraka wa taala ko jagoo cant gi nga xam ne sama borom tabaraka wa taala moo ko sant boppam bi nga xamee ne def na li mu def ba noppi ci kattanam te kenn dimbalewu ci dimbalewu ko te moo def lépp seet na boppam sant boppam ñu ne sant gi mooy lan ñu ne dafa wax ne alhamdulillahi alladi xalaqa alsamawati wal arda wa jacala alzulumati wannuura ak cant yi ko niru alhamdulillahi fatire alhamdulilahi alladi lahu ma fi samawati ak yooyu le am ñu wax itam ne dafa ne laysa ka mislihi shay'un alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent lillahi aji sax la ñeel farija alladi farija nga xam ne xalaqa bind na asamawaati asamaan yi juróom-ñaar ak li ñu ëmb wal arda ak suuf yi juróom-ñaar ak li ñu ëmb ak li nekk ci seen diggante te kenn fekk